ñuy soog a commencé ci suba nit ñi barewuñu woon waaw ah, dafa mel ni nit ñi dañuy puisque dimanche la dañuy jël seen temps pour ñëw léegi daal li nga ni nga fekkee nii rang bi nii peut-être il y a vingt trente minutes la fi commencé am donc euh, ma yaakaar ni xëy na nit ñi dañ doon toog ba ndekki xëy na sax ba añ soog a ñëw te kooku defe naa ni tamit Sénégal noonu noonu la ñuy def dañuy toog ba euh, seen xel daal ñu soog ñëw ci centre bi pour voter mais euh, li ñuy seddaat li ñuy seetlu moo di ni nit ñaa ngi ñëw béréb boo dem fi mu nekk nii da nga fa fekk lu mat ñett wala ñeent wala juróomi nit yu taxaw di rang euh, du rang bu metti nag parce que comme ni ma ko waxee rek ñett ñeent ba juróom ba juróom benn nit rek ñooy rang donc euh, et tout se passe normalement amul benn problème dañuy vérifier identité ñi ñëw di voter président bureau bi ak assesseur am dañuy vérifier identité bi naa vérifier identité bi Euh, kiy voté jël kayit yi muy voté ak enveloppe bi dugg ci isoloir bi su paree su génnee dugal enveloppe am ci urne bi su paree mu signe ni voté na ci list bi président bi yore signé ci list bi décennat bi yore capp baaramam ci encre bi ñu delloo ko kàrtam mu ñibbi incha allah. Mm-hmm. amul incident bu ñu fi mën a signaler wala manquement. Euh, vraiment amul benn incident manquement bi fi bi fi mën a am mooy bi ñu commencé ci suba am na benn wala ñaari nit ñu nga xam ne xam nañu tardé dix quinze minutes ndax xam nga circulation te xam nga circulation New York kenn mënu ko contrôler donc euh, ak aussi ku nga xam ni dafa am empêchement majeur de dernière minute mais on lui a trouvé un remplaçant dans les minutes qui suivent. donc ce qui fait que vraiment fi moom euh, gis guñu fi cardement bu am maanaam bu ñu mën a bu ñu mën a noter donc euh, en tout cas pour l'instant ça se déroule au niveau de la DSNA bokk euh, ñun ci suñu suñu personnel nous sommes là donc tout le monde est là et tout le monde travaille euh, donc euh, comme ni nga ko gisee nii suñu vice-président bi moo nekk fële moo nekk fii parce que ki fi waroon ñëw tey euh, dafa am empêchement donc moo ko remplacé ce qui fait que nous avons les choses en main dans les états aussi même chose am na benn wala ñaari état yu nga xam ne ki fa waroon siéger le décennat kenn ki dafa nekkoon ci circulation tardé na 15 minutes euh, am benn benn bu nga xam ni kooku Euh, dafa am problème mais remplacé nañ ko dans la demi-heure. donc ce qui fait que le euh, le vote se poursuit normalement partout sur le territoire américain comme ni muy déroulé normalement ici à Manhattan. à midi 30 fii ndax am ngeen euh, une idée du taux de participation. réellement pas sama secrétaire mooy mooy jël les chiffres actuellement mi ngi nii mi ngi nii toog. maanaam suñu soo leen paree soo leen ko laajee. Mm-hmm. moom na xayma Euh, la la participation mhm. parce que lu ñu demandé aussi suñu euh, représentant yi contrôleurs yi moo ñuy jox euh, donc leur leur note maanaam le nombre de votants ak yooyu mhm. comme ça ñu mën a seet naka lay progresser heure par heure donc moom xëy na dina am une de ce parce que moo yore chiffres yi waaw voilà je suis Mohamed Mbodj le président de la DCNA États-Unis

Et nous avons tout de suite euh, pu euh, remplacer ce monsieur qui s'était absenté de, pour un cas de force majeure. Et dans les États, il y a aussi le même cas qui s'est produit, quelqu'un qui n'a pas pu se présenter pour cas de force majeure. Et là aussi, dans les 30 minutes, on a trouvé un remplaçant qui a siégé à sa place et qui donc fait le travail. Alors pour l'instant, au début, c'était très au compte-goutte, disons. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Euh, apparemment, les gens attendaient de prendre le petit déjeuner et même le déjeuner pour se précipiter. Ce qui fait que maintenant, on est en train de voir la foule venir. Dans presque tous les bureaux maintenant, on a des queues de 4 à 5 à 6 personnes maximum. Bon, ce ne, ce ne, sont pas des queues extraordinaires, mais, mais disons que ça montre que les gens sont en train de venir voter. Et nous pensons que dans l'après-midi, il y aura un peu plus de votants qui vont se montrer parce qu'il semble que c'est le moment qui, que beaucoup ont choisi de venir voter, pour, venir voter. la sécurité ici est assurée par la police de New York. Donc euh, ils sont là, il y a une demi-douzaine d'agents au moins euh, qui contrôlent l'entrée et la sortie, qui contrôlent aussi les, les, les, les, couloirs de circulation et qui font en, en sorte que donc, les gens entrent euh, par une issue, sortent par l'autre. Nous évitons des attroupements, nous évitons que les gens accumulent par exemple à manger quelque part et donc en faire en sorte que ça se passe, que ça se passe bien. Voilà, donc euh, ça se passe bien. Et donc, euh, pour l'instant, nous n'avons pas d'incident à déplorer. En tout cas, un incident qui exige, qui exigerait, disons, l'intervention des forces de l'ordre. Pour l'instant, on n'en a vraiment pas.